dañoo bëgg am lu ñu ci wan sénégalais yi waxtaan ci man ak grand zal parce que grand zal defe naa démb mbappat mi boo seetaanee mais démb tamit am na xale yoo xam ne dañ ma impressionné si mbappat mi hmm. xale bi ñuy wax saa bu ngangu naay hmm. ku mën a ngi noonu démb nag mon général Malika xam naa revanche la ñu def ndax problème bi mooy la fois passe dafa yàggul dara hmm. général Malika dafa ngemb boy Malika indi ko saa cis bu ngangu naay daan ko avec la manière démb nag mon général Malika ñu daje quart waaye daal bëri nañ bëri bu méttee métti waaye ba see di wàcc di daw di ko sol. Mhm. Hmm? di ko dóor placage mi lu ko tëll daan ko ba see ba mu ko daan nag yemu ci daan ko parce que da ko daan yéeg ci biir. Mhm. <laughs> Sa Thiès tamit jóg xol bi tàng ñu bëgg a jàppante foofu. Mhm. ma gis ñagas bu bawal tamit ñagas dëgg ñëw sot si loolu lépp pour wan la ne lamb ko dafa neex. dafa neex xale boobu xam nga naa ko bu baax xam naa ko bu xam naa ko bu baax. mu ngi nekk Caaroy la nekk. Caaroy écrit Caaroy la nekk ci ñoom rëgg baax xam naa ko baax ñoom ak Boylo. voilà moom Boylo waaw Boylo itam. Boylo waaw waaw ay mbiru mbapat la ñu ñaar ñoom. ay mbiru mbapat la ñu xam nga Général Malika. Mhm. Babacar seetaan naa ko mhm. lu bare bare bare. Mhm. je pense que ne daan nga rëgg rëgg. waaw waaw. topp naa ko fii. <laughs> c'est-à-dire bis boobu waaw poids bi nga xaw a jël nag xaw na la téye tuuti. waaw. Hmm? <laughs> xam nga xam nga boo tàmmee entraînement. Hmm. tàmm coono. Mm. boo toogee compétiroo rek. da nga jël quoi daje naag barki démb benn waaye ndeysaan mu dawal mu dawal moto ba dab ma ne ma général waa ji naan ko wax ko ko. mu ne ma waaye dama bëgg expliquer quoi mu ne ko waa mais ko bëgg bëgg na mhm. ma <laughs> euh, mais nag comme ñun yàlla dogal hmm. la ci. Hmm. <laughs> te boo nekkee yow ah, soo bëggee mu dañ mu dañ. mu dañ mu man gis naa ne xaw na la téye tuuti quoi. ñu ngi wax quoi mais amul problème. non loolu moo am. Mhm. xaw ko dindi tuuti rek. incha allah ba dindi bu bari yooyu mais wàññi ko tuuti rek. incha allah waaw laal laal ci tuuti rek. incha allah tuuti rek. mais soo façon bëri bi muy bëri. waaw poids lourd buy jëri buy xeex. waaw loolu grand salle. waaw ci général Malick parce que xam nga combat dóoram day jëri xam nga simple day day jëri. bi muy bëri ak eh, <clears throat> Bour Sine tolloo woon ni. déedéet. Hmm? woon ni. léegi da nga gën a yokk poids démb seetaan naa la ma ne booy bi. Mm-hmm. poids bi xaw na ko téye. Mm-hmm. dala xaw a téye da ngay bëgg a def dara sax mais. Mm-hmm. da koy waaj ko wala da koy def dafa yéex. voilà mu ngi noonu liggéey ci tuuti rek. incha allah da nga mën bëri man topp naa la. dëgg la na boobu nga gënoon. waaw tolowul nii taa boobu noonu. Hmm, taa boobu am na taa bëri simple bi nii booy. neexoo woon dara. waaw dëgg la ah dëgg la. bëri simple ma neex Babacar. parce que ci la mu ñëpp xamee. dëgg la bëri simple waaw bëri simple. def nga ci lu doy waar. voilà muy mbapat yeeg. ay drapeau ca Fatick mu ngi noonu. kon bëri simple man daf ma neex xam naa ko bu baax. góor góorgóorlu yàlla baax na tofal ci poids bi tuuti rek. incha allah mm. tof ci tuuti rek. bu soobee yàlla. en attendant ñu profité ak temps bi ji. waaw ah, mu mel ni yow yaa ngi jëm le 10.